du fenn fudul ci Ousmane Sonko ndax nak polémique yi bëri na ku nek nga wax jokkalante ka amnésie Ousmane Sonko day amnésie mais yakarna amna vidéo bo xamantene Ousmane Sonko waxon nako ko te man amna naa njortu ni ci lay dox du ko nangu donc nañ dem seetaan vidéo Ousmane Sonko bi nga xamantene defon nako di ñew Ce dialogue en réalité cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Macky Sall dafa jàpp pour mu dialogue ak nit faaw rek mu téye la ba pare dafa am loo xam gor mënu koo nangu te loi d'amnistie rek ngi avertir sénégalais yi ndax mun na ci dugal loo xam ne yi am ci réew mi yëpp dañ ko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 Nekul nekkul coupable ci lenn liñ koy toppee donc mënul nangu amnésie té nak ñu déggando li nga xamantene moy mooy yi nga xamantene Ousmane Sonko yëkëti nako donc yaakarna Ousmane Sonko tax xalaatu ko té waju ko def li nga xamantene ñu koy ngawti ngawté fan yi